الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهو ظلمه وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba nu tàmbalee ci turu borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi ñaanal sun yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi ginnaaw loolu ñu ngi fàttali sunu bopp di leen fàttali ci ay mbir yoo xam ne dafay yàq xol mufsidatul qulub te xam ngeen ne doomu aadama rawatina ab jullit su xolam yàqoo léppam yàqu na addunaam yàqu na alaxiraam yàqu na looloo tax ngeen dégg ki yàlla yónni woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan ala inna fil jasadi mudga ida salaha salaha al jasadu kullu wa ida fasada fasada al jasad kullu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na benn suux mu ngi ci nit benn daggitu yàpp mu ngi ci biir nit su daggit boobu baaxee doomu aadama baax su daggit boobu yàqoo doomu aadama bi day yàqu yonent bi biñ ko laajee suux woowu lan la mu ne mooy xol loolu moo tax ngeen dégg alquranul karim ŋàññ ñu baree bari ci ay nit ñu seen xol yi yàqu nit su xolam yàqoo dootul gëm yàlla dootul bëgg yonent loola tax kenn ku nekk ci ñun nga war a xam lii yàq xol nga mooy tandik ko balaa sa xol yàqu jàngeen alquran ne fii qulubihim marad seen ñooñu seen xol yi dañoo feebar jàngeen alquran ne summa qasat qulubuhum ñële seen xol yi dañoo wow jàngeen alquran ne kalla barraana ala qulubihim ay gaaya ngi ni yoo xam ne seen xol yi dañoo xomaat ñetti mbooloo yi benn baaxu ci waaye ñooñu ñëpp xëy ñu rek seen xol yi mel noonu dafa am ay yoon yu ñu jaar ay jëf yu ñu def ay place yu ñu dugg lu nu lekk wala lu nu naan wala lu nu sol ba seen xol yi mel noonu ba seen xol yi ku leen neeti yàlla nee na du ñu yëg caf ka ngëm yàlla ku leen neeti yonent bi nee na dootuñu yëg te tey doomu aadama yi foofu lañ toll mooy xol yi dañoo feebar xol yi dañoo xomaat yii xol wow yii xol dee mbokk yi li ëpp ci li yàqu xol juróomi mbir la bi ci njëkk mooy kasaratul muxaalata kasaratul muxaalatatu mooy bëri looy jaxasoog nit ñu bon jullit su fekkee dafa bëri dem ci ay place yu bon wala muy jaxasoog ñu bon léegi mu bon sooy jaxasoog ñoo xam ne amuñu ngëm gëmuñu yàlla gëmuñu diine seen pas-pas dëgërul fooy mujj nañu mel ngay mel olof yi ne olof yi nee nañ wax ma sa xarit ma wax la yow yaay kan loolu moo tax alquran a ngi nii di ñu wax ci saar bu tudd suratu zuxruf aaya 67 ay nit a ngi nii yu bañoon jaxasoog yonent yàlla muhammad dem jaxasoog ñeneen dem ànd ak ñeneen dem farak ñeneen lan moo leen dal ñu ñëw yowmal qiyaam di màtt seen ñaari loxo ndax ñàkk jaxasoog yonent bi borom bi ne yawma wa yawma yauddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittaxastu maa rasuli sabila ya waylata laytani lam attaxis fulanan qalila laqad adallani ani dhikri bada is jaani ay nit a ngi ni yoo xam ne ñu ngi ni di rëccu waaye fekk nañu rëccu wees na ñu ngi nii màttatuñu sax baaraam ndax àdduna ku fi am jafe-jafe ku fi am xat-xat sa baaraam ngay màtt waaye musiba alaxira moo rëy ba baaraam day tuuti ci yow looy màtt say ñaari loxo yàlla moo ñu ko wax wa yawma yauddu zalimu ala yadayhi yàlla nee na yawmal qiyaama tooñkat ki doon tooñ yàlla jaxasoog ñeneen ba ñooñu yàq ko yowmal qiyaam mu ñëw di rëcc ñaari loxoom lay màtt est-ce que ci àdduna nit mën na màtt benn loxoom abadan ndax loxo xejul ci gémmiñ waaye yowmal qiyaam nit dana ŋaang ba gémmiñ gi xar ba ñaari loxo yi xëcc ndax musiba yowmal qiyaam la doomu aadama mënta dégg ko borom bi ne ñooñu lan la ñuy rëcc tey mooy dañoo xaritoo woon ànd taqaloo jaxasoo ak ñeneen ñu dul yonent yàlla muhammad nga dégg waa ji naan laytani ak a neexoon tey man fii ittaxastu maa rasuli sabila ma jaaroon ci yoonu yonent bi ma ànd ak yonent yàlla muhammad ma farag moom borom bi subhanahu wa taala wax ñu ba tey ci suratul ankabut mu ne ñépp ñu jaxasoo woon ci lu dul yàlla danañu rëccu ibrahima alayhi salaam ci làmmiñam la ñu yàlla jaarale wax jooju ci alquranul karim yàlla mu ne ibrahima ne ci suratul ankabut aya 25 mu ne innama taxastum min dunillahi awsaanan mawaddatan baynakum fi lxayaati dunya summa yowma alqiyamati yakfuru baadukum bi baad ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من الناصرين borom bi nee na ay nit yu fa xar xaritoo woon ay nit yu àndoon ay nit yu dul jaxasoo ay góor ak jigéen a ngi nii yoo xam ne dañoo jàppoon leneen lu dul yàlla ànd ak moom farak moom jaxasoog moom lan lañ ci jëlee lan moo leen lor tey yàlla mu ne yéen ñooñu tey da ngeen di weddi wante te yowmal qiyaam ñii dañuy taxaw naan yàlla ñun xamuñu woon ñii ñun ànduñu woon ak ñii ñun xarituwuñu ak ñii ñun bëgguñu woon ñii yemuñ ci loolu waaye dañuy rëbbante ku nekk di rëbb sa moroom di ko ñaanal alkande yàlla mu ne yéen ñooñu di xuloo yépp ak yéen ñooñu àndoon ngeen ñëw ba fii te di rëccu yéen ñëpp seen rëccu amul njariñ ndax ma awaakumun naar safara laa leen jëme tey borom bi nettali ñu ba tey ci suratu zuxruf aya 67 mu ne al axilla yowma idin baaduhum li baad aduwun illa almuttaqin ay nit a ngi ni yoo xam ne dañoo jaxasoo woon dañoo àndoon te ànduñu ngir yàlla ay intérêt moo leen àndale woon xoolal tey li gën a rëy li gën a garaaw tey li journaux yi xëye di ŋàññ ñooñu ñuy wax ay politiciens ñu tàmbali ca Senghor ak Mamadou Dia ñu ànd day tas ñu ànd day tas ñu ànd day tas ba fii nu toog lu tax ànd gi di tas mooy yàlla moo ko lalul du diine parce que andre ànd intérêt la ànd ku nekk sa poos loolu moo tax yàlla mu ne ñépp ñu ànd te ànd ñu ngir man yowmal xiyaam ay noon la ñuy nekk yàlla moo wax dëgg ci biñ ko gisee ci àdduna ñun ñëpp ñu teg ci bët te yowmal xiyaam ñëwagul al axilla baaduhum li baad yàlla mu ne ñi soppante woon ànd bëggante ëllëg yowmal qiyaam ku nekk day joxor ji sa baaraam lu tax ku nekk sa noonu moroom ngay nekk lu tax parce que yàlla taxul woon mu ne illal muttaqin ba mu des ñi ragaloon yàlla ñooñu dong ñooy ànd àdduna ñooy ànd allaaxira ndax yàlla moo leen boole woon mbokk yi kon li njëkk ci li yàqu xol mooy jaxasoog ñu bon ñaareelul al mafsada min mufsidati al qulub rukubu bahru tamanni mooy yéeg ci gaal googu wala dugg ci oto boobu wala war ci bato boobu ñu naan bëgge mébét gaalu mébét oto boobu ñu naan mébét te mooy toog rek di gént am ay rêve comme nit ñi li ñuy wax tey xale bu góor ak xale bu jigéen dëkk bi yëpp koo gis rek tey day gént ku romb étage da ngay gént soo ko moomoon ku gis xale bu jigéen bu rafet da ngay gént soo àndoon ak moom ku gis góor gu am alal da ngay gént soo séyoon ak moom buñ la wonee Europe ngay gént yenn saa yi sax nit ñi won ko télé mu bëgg a ubbi télé bi dugg ndax nekk ñooñu fa ñu nekk mébét gu mel noonu wa huwa bahrun laa saahila lahu wallahi mooy géej gu amul tefes su ci duggee du teer tefes toog rek di mébét tey loolu moo sànq Sénégal ku nekk looy mébét mooy ay milliards ay millions loolu yóbbu nañu ba kenn ku nekk ci ñun xoolatoo lu dagan moyen boo def ba am alal rek c'est bon léegi sax kenn dootul wax waaw kii fu mu jëlee alalam ji jàkk joo ko indi nit ñi jël sëriñ boo ko jox àddiya mu ne la jërëjëf kilifa góor nuyoo ñaari junni ci biir loxoom du wax kii fu mu ko jëlee te dugal ci bosam rek ne la jazakallahu xayran loolu moo nu indil musiba ba kenn dootul xool ndax am am yi dagat na lu tax parce que mébét gaalu mébét amul tefes wa huwa albahru allazi yarkibuhu mafalisul aalami gaal la goo xam ne ñi gën a yées ci xeet wi tey moom la ñu yéeg ñi perte ñépp gaal googu la ñu war kama qila inna almuna rasu amwali almafalis ñu ne gaalu mébét mooy capitalu ñi perte nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yéen a ngi jëm jamono joo xam ne nit dina romb bàmmeel mu ne aka neexoon ma tëdd ci bàmmeel bi ma nekk fii aka neexoon kii dee nekk man lu tax ndax ni ñu defaree bàmmeel bi ni mu rafetee toll nañ foofu tey nit romb bàmmeel ndax bàmmeel bi niñ ko tabaxee ci ay karo niñ ci defee ay fleur niñ ko orné nit ki mébét wala sax nit daal di dénkaane ne bu ma deewee def leen sama bàmmeel comme bàmmeel bii allahu akbar mbokk yi ci yàlla falaa tazaalu amwaalu amwaajul amaani wal akaazib wal xiyaalaat al baatila tatalaabu du deñ waa jooju nekk ci gaal googu nga xam ne gaal gi du teer gaal gi di ko puus ak ay vaggam vague yi mooy ay vague fen ndax day mébét rek gaal googu mu nekk li koy puus di dem ay feni kese la ndax mébét yooyu mu mébét ay feni kese la dara du ci dëgg ak ay janeer ay image bu séenee ay belu jaton xeeru xeeru béton bu jalu sax muy muy rêve ne lii benn xeer bu nekk yàlla def ma ko waroon defal or muy xalaat ne xale bu jigéen bu mu gis bu rafet rek ci ginnaawam la war a fanaan wala borom alal bu mu gis rek war naa ànd ak moom loolu mooy musiba bi gën a rëy bi alak julli di tey mooy mébét mébét yu dul jeex bëgg alal nekk seen kanam ba seen xol yi yàqu seen xol yi wow ixwatal iman mbokk yi ñetteel ci li yàqu xol mooy ata alluqu bi gayrillah aju ci ci kudul yàlla aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون المفسد الثالثة من مفسدات القلب التألق بغير الله تبارك وتعالى ñettel ci li yàqu xolu jullit ba dootul nekk jullit diine dootu ko jëriñoo dootul xam yàlla dootul xam yonent mooy aj sa xol ci kudul yàlla te tey looloo ñu rey li ëpp ci nit ñi mooy doo ubbi seen xol yi fekk fa yàlla allahu akbar feebar bi gën a rey bi dal julli di tey ci kaw suuf mooy aj seeni xol ak seeni xel ci kudul yàlla wa hada azamu mafsidatihi ala al itlaq nee na bii moo gën a rëy ci li yàq nit mooy aj sa xol ci kudul yàlla jullit day aj xolam ci yàlla subhanahu wa taala gis ngeen Muusa keroog ba ko Firawna dàqee ba mu sës ci géej gi mënatul dem su xoolee ginnaawam mu gis Firawna di ñëw ak gàngooram ak soldaar yi su xoolee ginnaawam mu gis géej gi fu mu jëm gaa yi amul woon imaan amuñu woon pas-pas ajoon seen xol ci kudul yàlla naan ko tey ñu dee inna la mudrakun tey ñu jot ñu Moussa moom comme yàlla la àndal ma nga naan leen kalla inna ma'i rabbi yàlla laa àndal nit day aj xolam ci yàlla yont yàlla Muhammad ba ko banu ba ko Quraysh dàqee mu dugg ci xuntu mi ñu ñëw di ko wër mi ngi ànd ak Aboubacar Aboubacar tiit naan ko dinañ ñu gis mu naan ko laa tahzan inna allaha maana bul tiit yàlla mu ngi ànd ak ñun jullit day aj xojam xolam ci yàlla subhanahu wa taala fa laysa alayhi adar min zalika dara gënta nekk lor wala aqtau lahu ala masalihi wa saadatihi minhu dara gënta dindi nekk luy dindi texe ci jullit mooy taalluqu bi gayri llahi wa tawakkulihi muy aj xolam ci keneen ku dul yàlla wala muy wàkkirlu ci keneen ku dul yàlla lan moo tax tey njabarkat yi am ay R plus 5 ci Sénégal lu tax bu xaaba yee xërëmkat yi aj seeni xol ci keneen ku dul yàlla dama nekk ci benn jàkk di def waxtaan ci nit ñi ni ñuy demee ci bàmmeel yi nit ñi ni ñuy ziyaare jee bàmmeel yi te du noonu bokkaale gi ñuy def ci bàmmeel yi benn waay ne ma dinaa la indil benn CD. seede bi mu ngi amee woon Niger benn waay ju faatu ci ngoon ñu dem roob ko ñu bàyyi ba guddi benn buxaaba dem gas bàmmeel bi ba mu xóot mu dugal boppam dugal ay loxoom dugal dënnam dugal biiram ne day dagg waa yàlla néew bi bàmmeel bi màbb ci kaw waaji waaji dee mbaa yor seede bi bàmmeel bi maaj waa ji di dagg awra néew bi bàmmeel bi màbb ci kaw mu faatu bët set nit ñi ñëw di suul ci armeel yi ñu gis waa ji ci kaw mu ngi tàllal tànk yi mu ngi dee ñu woo waa dëkk bi lii lan moo ko waral ñépp ñëw àdduna bi yépp dajef ilimaanu dëkk ba ñëw ñu ne léegi nañ ko sulli nañ ko xëcc nañ xëcc tànk yi ñu xool lan la ñu xëcc rek loxo ndeyjoor bi génne awra waa ji loxo càmmoñ bi yor paaka bi ndeke awra néew bi la doon dagg lu tax ngir alalu àdduna beneen keneen ki jigéen bu musul am doom la jigéen bu musul am doom bu xaaba yi ne ko da ngay def yaramu neen woddu sër te bul sol tubéy nga dem ci armeelu nit ku baax ki tëdd fële ndeke loolu moo tax ngeen gis jigéen ñi ñu ëpp ci jigéen ñi di dem ziyaare ji armeelu nit ñu baax ñi ndeke du jàmm boo demee nga ŋàppeeku bàmmeel bi boo ñëwee boo séyee di nga am doom xoolal tey Sénégal foofu lan toll àddina bi fii lan toll ci ay nit mbir yu bon yu nit ñi toll yenn saa yi nga dem ci armeel yi ngay gas ba ci ak nga nga sulli benn béjjën bu ñu def ay petaaw ak ay sagar yu xonq suul fa gàllaaj démb barki démb dama doon sang néew bi ma paree benn waaye ne ma li nekk ci morgue bi yëpp dajale ko ci ay bagage bul fi bàyyi jàmpe bul fi bàyyi saabu bul fi bàyyi sagar yu weex yi bul fi bàyyi dara man ko lu tax mu ne moom booy dem nit ñi ñëw di di ci ut lu ñu lu ñu liggéey bu bal yëpp indi ñu gas pax suul ko ci foofu la nit ñi toll tey mbokk yi jullit yi yàlla nu yàlla jubal ñeenteel ci li yàqu xol mooy lekk gu xaraam lekk gu araam nit buy lekk lu xaraam xolam munta baax mënta ñaan yàlla luñ ko may Sénégal du hasard mu mel nii du hasard mu mel nii nit ñi ñaan guddeeg bëccëg dëkk bi ne keng changé nañ ay président ba dee dëkk bi ne keng ba tey ji baaxagut du baax parce que yoon wi ñu jaar moo baaxul nañ waxante dëgg nit ñi la ñuy soppi mais changé wu ñu jikko yi inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim su fekkee da ngay lekk lu xaraam bëgg a ñaan yàlla du dem booy julli yàlla du ko nangu booy wor yàlla du ko nangu booy lekk lu xaraam sa dara du baax sa xol day wow sa xol day yàqu parce que lu xaraam li mooy yàq xol bi parce que lu araam ngay lekk benn waaye ñaan na ba poqotaanam di feeñ Moussa ne yàlla kii doo ko may xoolal li mu ñaanee yàlla mu ne ko li mu sol dafa xaraam li muy lekk dafa araam li muy naan dafa araam fi mu toog daa araam fa an naa yustajaabu lahu naka lañ koy nangulee juróomeel ci li yàq xol mooy kasaratu nawm nelaw yu dul jeex bu dégg bëccëg nit ñi dañuy nelaw ba duñ dem fajar jàkk boo fëggoon jàkk yi fajar tey jumaa ji lii mu feesee vendredi est-ce que jumaa ji mës naa feesee nii julli fajar ay nal muslimun ana jullit yi ki leen sant ngeen julli jumaa moo leen sant julli fajar lu tax ngeen gëm ne jumaa ngeen war a dem waru leen julli fajar yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله